ci premier jour de l'an bi ñu commencé dugg ci 2022 xëy na ñu bëri bàyyiwuñ xel na ñuy duggaat ñu gëstu li may wax. Mhm. nee laa leen de dina am ay changement dina nekk at yoo xam ne atu ay mbégte yoo xam ne dinañ ko gis. Mhm, li ñuy gis ci mbégte mooy ëpp. Mhm. ay surprise yoo xam ne duñ ko foog. effectivement kon de askan bi nga xam ne ñoo fi yeewoo. nañu doon seen gendarme bopp doon seen policier bopp am seen fulla ak seen fayda. bàyyi xeex beeg sànnante xeer yi loolu jëfu immature la nañ ko bàyyi. mais am na benn point bu ñu ma régi euh, di léegi foofu la ñuy tëjee. Mm-hmm. Euh, mooy violence bi nga xamante ne jot nañ ko nemmeeku as tuut ci élection bi ba ci ki nga xamante ne mooy Pape Alé Niang jot na génne am na ay nervis yoo xamante ne dañ leen a jëlee fii. Mm-hmm. yóbbu leen ba yeneen dëkk pour ñu mën a voter ñu yoroon ay ay ngànnaay yoo xamante ne kenn mënu leen a woon euh, jege. Oh. te dañoo interdit woon ni que dëkk ba dëkk kenn mënu cee mm-hmm. tukki loolu nga mën cee ñëwaat ñu tëj point boobu ñu tàggatoo. waa shérif mooy comme li ma doon wax nguur. Mhm. xaalis mayewu ko. nguur xaste mayewu ko nguur saaga mayewu ko na ñi nekkoon genre Kaliphone Sall gi ak n'importe kii nit ñi nga xam ne dañu nekkoon ci réseau sociaux yi di saaga est-ce que ñooñu dañu mën a apporter Macky Sall dara. Mhm. ana Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ana Koura Macky ñoom foog nañ ni li ñuy def nii dafay rendre euh, euh, dafay rendre service président Macky Sall déedéet dañ koy yàqal. Mhm. parce que boo demee ba toog ci askan yow nga nuru ne sénégalais nga doomu jullit nga même boo doon doomu jullit am nga loo gëm am nga ngëm-ngëm am nga jëmu waaye kon fa nga jëm da nga war a fexe sa der rafet fa ku lay xool xool ci yow lu rafet. Mhm. jël ci yow exemple bu rafet mais toog ci internet bi di saaga ay ndey jàmbur di saaga ay baay jàmbur di saaga ay kilifa jàmbur. loolu fan lañ ko teg teguñu ko fenn léegi lii indi chute bi nga xamante ni moo indi lii dana indiwaat chute bu ko raw heureusement bu président Macky Sall génn na ne moom ci waxe troisième mandat jëmu ci tey bu sañ euh, président Macky Sall nërmeeloo mm-hmm. lii moo ko indi démb rek wax naa ko nee naa ay kilifa bu ñu demee ba wóolu leen mm-hmm. def leen wasi la mm-hmm. yow nga am noo taxawee sa taxawaay rafet nit ñi dañ la topp def la sëriñ sëriñ mooy ki nga xam ne dafay jàngale lu rafet mais boo demee ba bëgg jaay sa ngor jëndee ko nguur jëndee ko alal gàcce gi dalay dal xolal décision bi population moo ko yor ndaw ñi ñoo ko yor te seen décision jël nañ ko xale yi léegi déglootul ku leen wax loo xam ne arrangé wu leen parce que boo leen waxee loo xam ne arrangé wu leen sénégalais am nañ fulla am nañ jom am nañu fayda te lool kenn du leen ko jaay te foo leen ko jaayee ñu jënd ko léegi nag lii moo indi sanction bi ñoom dañu dama am lu remarqué ci ñoom tamit dañu am hmm. fulla hmm. maanaam dañ leen di jox seen xaalis xoolal dañu boole teel ak jëf dañuy lekk ba pare hmm. mëkkate ne mu jàpp seen njàmbur terewul yàq nañ seen xaalis. effectivement Mansour Faye boo nekkoon woon pëkk pëkk guddi boo demee ba naan je suis confiant man fi ma nekk leer na ma da parce que man dégg naa ko muy wax loolu. boo yàlla rek moo war a am confiance si mu toog yeewu suba toog ba ngoon sax suñu borom moo la koy leeral kon bul am nit naan bul naagu Youssou Ndour mu ngi koy wax bul naagu ku naagu daagu te ku ku daagu ñu romb la te loolu moo leen dal tey am nañ benn défaite boo xamante ni. boo duggee seen biir xol yi ak seen xel yi du nelaw parce que tiitaange la leen di jural surprise la leen jural parce que nit boo bëggee natt sa doole rek taxawal ci pénc bi nga taxaw ne patt bul wax mhm. bu ko defee di nga mën a natt ki la bëgg ak ki la bëggul léegi boo demee nag ba tëgg sa dënn ne mën a mën a dangay xaar bañ ne yow la parce que décision bi mooy je je suis confiant mooy da nga doon xaar ba résultat génn mu leer na la yow yow da ngaa yëkkati sa loxo ca kaw mais yow yaa ngi ne je suis confiant ba pare population bi ne tey dañ koy sanctionné kii dañu fexe la muy damoo ak la muy tiitaroo lam ñuy jaay dinañ dindi loolu. kon mu mel ni violence boobu noonu ñu nommé euh, doonaka euh, yu ñu constaté ci élection yi nekk na ay violence yoo xam ne. gis nga ñoom mhm. dañoo ñàkk fayda. Mhm. boo leen seetee dañoo ñàkk fayda mata di manqué parce que yow boo toogee sa population. say rak say mag say ndey say baay nga yor sa ngandam gurdin doon ponkalu magum yàlla taxaw di dóor say ndey di dóor say baay di dóor say rak te ñi ngay dóor yëpp yéen a bokk ñi ngay dóor yëpp carte d'identité sénégalais la ñu yor comme yow ngay xoqatal ay nit di leen tiital xaalis jaru ko xaalis jaru ko jaay sa ngor ndax xaalis jaru ko parce que après mbub moom boo ko simee da ngay dellu mel ni yëpp te looy def di ci làqatu jaru nga koy def ndax yàlla suñu borom dafa yor bët bu rëy bi parce que ñoom ñi koy def dañuy jël seeni kanam nëbb ko effectivement bu ñuy def seen yëf dañuy jël seneen kagulew mm-hmm. te am na loo xam ne rafetul ci entre sénégalais sénégalais sénégal am na façon bu ne mais lii mosul am biir sénégal mooy di jàpp ay nit di leen néewal doole di leen dóor nit nag booy dee deewal ci ngor booy dund dundal sa ca ca ngor boo ñàkkee ñàkkal ci ngor bu ñàkk tam ñànki waaye boo ñàkkee ñànki dana la tax a lekk ñamu mbaam wala nga naan petit nit mm-hmm. dafa war a gore nañu bàyyi violence bi ñuy exercer ci population bi di leen dóor di leen toroxal di leen rey yii ju leen jural dara am réew nag bu demee ba faagaagalante ne fa musiba da koy jur te ñii ñëpp seen doole dina wàññeeku man maa la wax loolu. seen doole te am na lu ma la waxoon benn jour ne la nervi bu ñu moytul xale yi dañuy dem ci seen kaw. effectivement. mës naa la ko souligner te keroog xeex yi jotoon am confirmer na loolu. Mhm. parce que ñii dañu doon riposter dañuy xeex ñii di riposter. Mhm. te loolu bu demee ba am rek commencé nañ leen ñeme gis nga ni ku miin sa wax yeb la. Mhm. mooy tey boo nekkee ci position pouvoir dafa am noo war a doxalee yërmande munoon nañ sax di wax force de l'ordre yi ñoom ñuy arranger mais doo jël ay nit ñoo xam ne ponkali nit yoo xam ne da ngay tiim nit di ko néewal doole wala nga yor yar. wala nga yor arme boo xam ne danga koy teg ci nit koo xam ne yooyu ko ëpp doole wala li nga sol wala mbum mi nga sol moom moo la may nga def loolu te loolu nekk na loo xam ne foo ko def di nga jàkkaarlu ëllëg sa borom di nga xam ne tam lu ñu lay fay jaru ko ndax bu buñ la ci fayoon fukki dërëm bu ëllëgee boo simee mbubb boobu wala ka ngay yaakaar wala ka la koy def loo bu ëllëgee di nga rëccu lan moo tax nga defoon loolu parce que di nga ci am ay regret élection yi nii fan la mën a jëmale Sénégal ci gàttal rek révélation mooy mm-hmm. li may wax mm-hmm. liñ naan nguur gu jeex laa gisoon waxoon naa leen ko nguur gu mm-hmm. jeex mooy lii mooy nga dem ba sa assemblée nationale opposition am fa majorité mooy nguur ga daanu na parce que fu assemblée am fan lañ fay votel projet de loi ñu koy votel fekk mu nekk opposition donc ñooy jël décision ñoom ñoo jiite kon léegi dañuy wax ne Macky Sall jiiteetul réew mi askan bee ko jiite. askan te lii lu ma waxoon la ci lu paase nee woon naa leen dinañ am surprise lii démb la rek démb ak tey dara xaju fi. Mhm. diggante xàcc ak dóor la lu nekk xaj na fi kon am na ci loo xam ne nañ ci bàyyi xel. Mhm. dinañ am tam yeneen surprise yoo xam ne duñ duñ luñ dul foog la parce que lu ñu foogul woon démb rek maa ngi leen koy wax nañu génnee sarax dugub si. génnee saraxu suukar si dana tax jàmm am danay voté ci jàmm dikk ci jàmm xeex nag bay wéy na mbuus jaratu ko mm-hmm. parce que résultat yi on déjà tombé jeex na kon nañu ñaan Sénégal jàmm rek di fi sax. d'accord ñi nekk bitim réew tam dañ leen di ñaanal saa su ne. ñu yeewu ci jàmm. Mm-hmm. yàlla di leen yombal seen bëgg-bëgg. Mm-hmm. di leen yombalal seen wërsëg ñi nekk Sénégal tam yàlla nañu yàlla tegg ci guute. yàlla musal ñu ci néewalantal doole yàlla mm-hmm. musal ñu tam ci yàqante uñuwante sutura. parce que léegi ñenn ñi seen arme shérif ñu ngi ko def muy jël sa sutura moroom pour def ci moom faiblesse boo xam ne da nga koy chantage wala nga xas ko wala nga waxal ko lu bon. vitesse am bi nga xam ne moom lay dawee wala nga yàqal ko liggéeyam wala nga nekk di wane loo xam ne du dëgg. Mhm. nit li ci sa biir da koy génnee te muy dëgg. Mhm. mais boo ñëwee du influence ay jeunes wala nga leen di won loo xam ne li lii warul nekk. wala gënul. Mhm. sa bopp ngay nax. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaay booy nga tàggatoo foofu rek ñu daal di. tëj waa euh, Chérif maa ngi tàggatoo <laughs> toujours mhm. internet Feeling Dakar di félicité félicité sénégalais yëpp. Euh, mhm. di leen wax euh, mardi ak samedi. na ngeen ñu xaar à vingt une heure toujours bu ñu yàlla defalee jàmm. ak wér ak fettal ak fekke. saa su ne ñu ngi leen di jëfal yéen waa bitim réew. Mhm. maa ngi leen di sant di leen gërëm ci félicitation yéen nga xam ne yéen ma koy félicité. Mhm. parce que du man yàlla ma bu la amee may-may jox la ko. Mhm. da ngay xam noo koy téye te du ma ko daboo. donc bu ma yàlla mayee dara ma may ma am loo xam ne daf ko def ci sama dënn muy may ma xam-xam as tuut. kon lépp lu ma suñ borom jagleel mu war a def ci sama réew jàmm. war a indil nit ñi nga xam ne ñoo jublu ci man bëgg a ñaanlu wala bëgg a leerlu mm-hmm. yàlla daf ma koy leeralal ma wax leen ko ci anam bi nga xam ne noonu la gënee te man sama bëgg-bëgg mooy Sénégal jàmm rek sax fi euh, mm-hmm. président Macky Sall dañ koy ñaane yàlla may ko jàmm may ko wér gannaaw euh, ay jàmm parce que dañuy xam ne tamit lépp xëccoo la mm-hmm. moom euh, mébétam ci Sénégal mooy Sénégal jëm kanam xëy na dadi lépp lu waay bëgg a jiite rek benn pombiteer bu nëpp day yàq saako ngay jiitu li ci ginnaaw di la gor lii moo indi defet bi waa yeeweeg waa waa ñeneen nekk ñeneen mhm. ñi nekk ci opposition ñu jël seen xol boole ko doon benn mhm. te yàlla rek tax ñu jël seen doole boole ko fas ne liggéey Sénégal président Macky Sall la ko fi dese as tuut na ko ci yàlla taxaw may ko gudd fan ak wér ba mu mën ko eggali ay mébét yoo xamante xëy na mébét na ko mhm. fii ak 2024 mu mën a defaat lu rafet loo xam ne moo gën li mu fi defoon ndax am réew ku ci toog rek am nga sas te sas sasu sum borom la. Mhm. ñi ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoo am ndam yépp yal na yàlla leeral seen xel. Mhm. leeral seen bët leeral seen xalaat ba ñu téye ko ci anam bu rafet. yor ko yor bu rafet ba sénégalais yi bañ leen mere comme nii mer gi ni mu toogee nii. waaye ñu jëlaat xol yi tàppe ko mu doon benn ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. yàlla musal ñu ci musiba balaa ak seytaane ak deegu ñaaw. jërëjëf jërëjëf yaay booy ñu ngi koy jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen yi nga xamante ni Euh, yéen internet Feeling Dakar toppoon ñu booba tey sànq ba léegi yéen ngi ci ligne bi ñu ngi leen di jaajafal bu baax amuñu seen fay mais di remercier aussi toute l'équipe euh, de Feeling Dakar régie bi ak ñi nekkoon sur le terrain vraiment c'était pas évident mais suba ba léegi ñu nekk sur le terrain di jox information yi en temps et en heure donc euh, toute l'équipe Feeling Dakar à travers ma maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ñi nekkoon ci régie bi ñi nekkoon sur le terrain ak ñi toogoon ci plateau yëpp ñu ñëpp di jaajëfal ñëpp donc waaw abonné bu massivement ndax surprise yi ñëw moo bëri te wax dëgg yàlla bëgg leen dencal yu baax yu leen dencal effectivement donc bëgg nañ yéen ñi nga xamante ni yéenay internautes yi yéenay euh, suivre affaires yi ngeen mën cee gis seen bopp donc ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné wu massivement di partager émission yi donc dinañ fi ñëwaat mardi à partir de 21h maak sama yaay fekk nag résultat yi xaw rusandi ñi war a falu falu ñeneen ñi war a ñëw ñëw mm. ñu daal gën a waxtaan gën a yaatal mbir mi waxtaane ko di euh, jox rendez-vous